wax bokk na ci doxu nemmeeku bi nga xam ne rek groupe Futur Média amaloon na ko ca xalifa général bu Omarien ci rek ziar bi nga xam ne ñu ngi koy waajal ci ñaar fukki fan ak ñett jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi ñu nekk groupe Futur Média nag taxaw temb ngir daal di tekk bépp matuwaay boobu xamante ni dina mën a tax boobu les ziar gën a ñoŋ dañ ciy teewlu Habib fay ak Modou Diop. na mu ko baaxoo di def groupe Futur Media indi na njàppandalam xaalis bi di Thierno Madani Tall ngir ziyaara gi mën a mucc ayib lépp la nga xam ne support d'information la bu groupe Futur média dinañ ko jël jébbal leen ko. Thierno Futur Media moom yaa ko moom ndax say ñaan egsi na xam naa si lu bari ñëw naa fi guddi ñëw naa fi bëccëg te mosuloo changer danga ñëw mus a taxaw di ñu ñaanal. di ñu yedd di ñu teg ci yoon donc tey sa bés suñu bés la kenn mënuñu see ëppale. li ci gën di bees atum ren gi groupe Futur Média ci ñeent fukkeeli édition ziara gi quotidien d'information bi di l'observateur dina bind ab kaye goo xam ne dina gën a xoolaat jaar-jaar ak mbindu Seydou nooru Tall. tey euh, ku xam àdduna bu ñu nekk jamono ji ñu nekk dafa xaw a tëradi mm-hmm. te loolu dañ koy teg ci àdduna bi ni muy doxee. dafa gaaw ndax digital bi waaye yéen xam-xam bi leen yàlla may ak dal gi ak vision bi xëy na ak li fi maam yi bàyyi woon bu si nit ñi sukkandikoo daañ si gis njëriñ xalif bi bég la def lool ci seetsi gi fàttali itam digganteem ak groupe bi laata rek muy tàll loxo yi di leen ñaanal mu ne Futurs Médias qualité la lépp lu ñuy wox ci groupe Fitri Média dafa war a nekk qualité kàddu yi ngeen fi rotal léegi kàddu qualité la xalifa bi nee na lépp luy jëmale réew mi kanam yéen a ngi ci yéen a ngi ci xar seen tànk tubéy yàlla na yàlla yóbbu réew mi ca kanam daanañ ko door ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ziara omarienne gi atum ren gi thème bi di crise des valeurs ak déviance sociétale groupe Futur Média yëkkati ay matériel yu am solo ay bassin ak yeneen bokk na ci tamit enveloppe gu dun jox ko xalif bile